financement nekk lu ñor askan bi lool te ñu bari xamuñu ana naka lañ ciy jote ndaw leeral tv génnoon jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog ndaw ñi tàllal leen suñu mikro ñu déglu leen ci micro leeral tv dëkk bi essence yi dafa dëgg yow yaay gis ndaw yi ñooy dem si gaal gi ah fii am na réew bi gars mën nañ fi ubbi ay usine gars di liggéey toog waaye dëkk bi instant yi booy boo xam ne kaaw kaaw soo temps yi ñi dee si gaal gi bëri na torop waaye diñu war a jàppale ndaw yi ñu war a jàppale ndaw yi ñu liggéey ñu liggéey am na am am na am na yoo xam ne ni koy def nii amul benn sens si réew nañ jàppale ndaw yi jeunes yi liggéey gëm seen bopp liggéey man instant yi ku ma jàppale woon damay dem instant yi ku ma jàppale woon damay dem ak sama yeneen morom ñu wëgg a gëm sin bopp toog liggéey yi jàppale ñu waaye essant yi dañuy seen benn bo essant yi géej mi wax ay nangam nangam booy nañ toog nañ toog booy lan nin dis essant yi réew bi dafa dëgër essant yi réew bi dafa dëgër ñun moom booy moom xam nañ fii moom liggéey liggéey bu fi amee comme essant yi yow boo tijj woon fii benn usine sama morom def ko def ko waaye yow dañuy dañuy gis koo xam ne yoog na ay milliards denc ko moom ay mbokkam kase loolu du yoon du soo suñu réew yi ministre yi si ministre yi suñu ñoom ñoo war a jàppale askan waaye di nekk si télé yi di wax wax rek ndaw yi ndaw yi am na loo xam ne moo jaaru du yoon nañ dimbalee nit ñi nit ñi liggéey gëm si gëm si ni réew fi moom ku fi toog moom ni na liggéey incha allah bu fekkee liggéey liggéey kese bi ñu jàppalee sa moroom mi ndaw yi dem géej ah nañ toog rek toog gëm yàlla liggéey gars yi jàppale ñu ñu ñu geesoo moom incha allah gëm naa moom nañ toog liggéey waaw jaajëf. amul kenn ci ñoom ñu xam ana naka la fay demee te financement nekk lu leen ñor lool te ba tey gisuñu kenn ku ci am ñuy ñaan nguur gi na leen jàppale ndax ñu jot ci financement yooyu te ku nekk ci ñoom yaa ngi yor sa liggéey di ko doxal nu mu waree. yàlla ñun moom yëgawuñ ko quoi parce que benn ins ni fi ngay nekk di liggéey sax. gars yi mairie de la fi sonal parce que temps yii sax ñëwoon neen fii bon wax pour ñu déplacer wu mayoon ñu délai di jours mais délai bi yegg na mais ñun ñu ngi fi mais ñëwuñ parce que foo nekk fu ne rek ñoom dañ lay ñëw di la di la duñ la may kii quoi duñ la may jàmm dañ lay ñëw di la lu ne ñi lay wax di la bundoxatal beneen bi mooy kàmb ya leen woon bon kàmb ya gis ngeen ni mu demee. gars yi ñoo neen jëlee ñu fa si lu ñu wax ñu ne joxe woon neen fa am na lu ñu fa joxoon mais ñun gisuñ après ñu ñëw fii nekk fii di fi suturoo nag xam nga di jox luñ luñ yóbbul suñ doom yi ak suñ rakk yi ak suñ mag yi ak suñ jabar yi parce que Sénégal loolu moo fi nekk boo fi nekkul si entreprise wala leneen mënoo fi liggéey leneen loo xam ne ne xam nga lay may xaalis xam nga mais yàlla dafa def nag ñun ñu yor métier métier boobu si leneen suturoo si li ma yaakaar moom kanaa bu ñu la financé wul sax boo amee foo nekk di fa suturoo rek ñu war laa mën a bàyyi nga am jàmm man loolu laa yaakaar boobu. financement man moom wax dëgg yàlla mosuma koo dégg. lay doon comme tey bu ma demoon ba nga xam ne ne ñu ngi ma bëgg a man si li ma bëgg mooy den may financé si maanaam wàllu mécanicien tey mën ne laa ubbil garage bu mag wala ñu yóbbu la société yi nga liggéey wala ñu yóbbu la station nga liggéey man si lu ma yaakaar wala bu ñu la yóbbul foofu tamit ah comme sénégal da ngay gis ñoo xam ne ne yoruñ diplôme. ñu jox la foo xam ne ne mécanicien yëpp dinañ fa man a nekk di liggéey nit ñi di ñëw ñi leen a liggéeyal ñi lay fay comprendre nga mën faa suturoo man si lu ma yaakaar nguur gi war naa mën a def lool xama foo xam ne ne day jox mécanicien yëpp ñu nekk fa xam nga nekk si jàmm te kenn du leen même bu dee sax dañuy fay mairie xam nga ñi def lool parce que moo gën quoi waaw parce que boo xoolee oto yi suñu yaaxoo mécanicien yi la yeneen moteur yi mécanicien yi la war na leen jël jox leen ñu am fu ñu nekk benn terrain comme tey niñ defaree stade defar koñ boo dugg nga fekk fa terrain football comprendre ñu ne xale yi leen ko defal te loolu tamit baax na mais beneen bi mooy mécaniciens yi yiñ lu terrain rek mooy problème bi quoi te wax dëgg yàlla mënoon naa mën a nekk parce que àll bi yaatu na quoi lu mel ni jam ñaaja wala affaire yooyu foo jox mécanicien place ñoom ñoom nga buub leen yóbbu leen fa yaakaar naa coow du amati seen diggante si biir dëkk bi suñ bëggee loo xam ne ne lu jëmale kanam réew mi la quoi man si loolu laa yaakaar waaw maa leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di gërëm tim yéen ñi fi ñëw di ñu laaj suñu question yi xam ne ne muy suñ biir xol ñu koy leeral ñu nit waaw di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waaw bu ma si waxee loo xam ne njumte la ñu xam ne ne si sama xel la bu ma si waxee loo xam ne lu jub la ñu xam ne tamit yàlla moo ko def waaw ah maa ngi koy dégg moom ci journal bi wax dëgg yàlla waaw projet liggéey rek carrosserie bi ni peinture yi waaw carrosserie oto tey jii ñu financé woon benn salle bu baax bu am four ak lépp baax na da ngay gën a liggéey carrément ah ay wàllu parkinage affaire yooyu comme fi ngay liggéeyee war a gaare say oto normal ak yooyu booy xool waaw te loolu financement moo la si gën a mën a jàppale tey jii bu ñu la utaloon benn xàll bu yaatu defal la ñaari ñaari salle yu baax maanaam saali cabine lay doon quoi am four oto boo peinture léegi d'ici une heure de temps mu waaw te man moom su ma bëggoon financement si loolu laay ñaan yàlla quoi ñu financé ma ci loolu sama liggéey gën a mën a dox wax dëgg dina doon xaalis de parce que boo xool cabine dafa cher waaw électricien yeeg bërëb bi nga war a aménager pour nekk fa espace bi xam nga courant bi ndox bi yooyu yëpp boo ko defoon début tey jii nii xaalis lay doon quoi. waaw xaalis lay doon wax dëgg yàlla moom nguur moom amul lu dul ay doomaanu dëkkam bu dara société bee ko fi teg waaw nguur gi moom nañ jàppale rek ci wàññi dund gi xam nga ci nekk nu jaam yàlla yi xam ci solidarité maanaam ñi jot ñu seen loxo jotul seen ginnaaw ñu jàppale leen ba seen loxo jot seen ginnaaw daal waaw carrément jërëjëf mu nekkoon ay kàddu yaam solo yu ñu fa jëlee waaye ñu mën a jàpp ne ndaw yaa ngi fi waaye ñu am jom ñu ngi fi ñoo xamante ne toog fii ci dëkk bi tekkee fii moo leen gënal fuuf jël mbëkk mi Leral TV